net bi début janvier la am beneen bi 31 décembre ku ne gis na Wally Seck li nga xamante ni defaat na ko ca euh, euh, fële euh, esplanade bu Grand Théâtre tuddee ko le bal des Fahamanas je pense que année bi mu nekkoon deuxième édition bi vraiment mu nekkoon une soirée très riche en couleurs en spectacle en symphonie lumière octave nekkoon soirée oh. bu bu bu bu <laughs> macha allah euh, moom euh, Waly Ballago Seck encore il a eu à ravir ses euh, fans par le biais de ses li ko yàlla may sur le terme vocal. noonee nag la papaam Youssou Ndour le 4 janvier moom itam yëngal si sa ba ba ba réew mi yëg quoi. Ah. lii Waly woon. waaw ñu taxaw ci Waly tuuti. Mm-hmm. yëkkatil ñu. itam euh, ki nga xamante ni moom moo di euh, Youssou Ndour uh-huh. euh, ni nga xamante ni noonu la yëngalee si ses le 4 janvier bi nga xamante ni moom la ñu génn moom Youssou vraiment aussi raversé fan de par ses performances vocaliques waaye itam li ci particulier mooy dafa am ay jàngat yu nga xamante ni def nañu ko ci soirée parce que ni ngi leen di neexalee nii man xam naa ne am na kaaboo topp yow parce que Youssou <laughs> quand même dañu daan gis bu daan soirée day ñëw sol benn ten xam nga woy li muy woy dem yoonam mais bi on a eu l'impression que Youssou dafa meloon ni kuy kuy anniversaire sol na summeeku ni bu so baali benn ñaareel ba Youssou taxaw na wax ay wax yu nga xamante ni kenn giseew ko ko ñu ci bari nag jàpp ni xëy na Wally Seck la doon tontu ca la mu waxoon ci benn live bu benn woyam bu tudd symphonie est-ce que duñu déglu Euh, la Waly waxoon rafraîchir la mémoire aux Sénégalais ñëw peut-être déglu Youssou Ndour li nga xamante ni wax na ko ci ses ba suscité énormément de euh, discussion par rapport Waly lu mu waxoon mooy niruwuma ak ñoom jëfin yi duñu benn xol yi xaw ma mooy seen hymne bi rek hymne national Faramare. lifin yi duñu benn lifin yi duñu benn. <laughs> Euh, bu paree Anta est-ce que duñ ko duñ ko déglu rek parce que xam preuve dafa baax ci lu ne nag. Mhm. wala ñu xool li papa Youssou wax li Youssou li Youssou di papa Youssou wax nañ ko déglu en attendant ñu ñëw ci Waly. ñun ñun mun nañ ci bii boo mun nañ ci bee ba li ci waroon yokk rek mooy gone may dëkk waaye maga may daan waaw parce que bu nee nga ay gaaral la aujourd'hui quand goto goto yàqul deru béy mhm. xam nga ni ndaanaan la ça signifie que lépp lu nga xamante ni xale yaa ngi koy def wala yaa ngi koy wax moom yooyu yëpp yëngalu ko parce que ndaanaan la aujourd'hui Youssou Ndour gis nañ ko mu ubbee tenue africaine euh, euh, bu bu rafet euh, mhm. daal di cay teg grand bu toog ne dafa xawaare fin temps mu sol veste di tëb tëb yi rek xam nga yooyu noonu yëpp bokk ci peut-être li tax nit ñi naan rawatina ak man c'est un constat personnel que j'ai dafa nekk di tontu ba tey Wally Ballago Seck bojo bojo bu leen bu leen bàyyi xel doxal sa dox à chaque fois ci grand bal bii nii lay lay est-ce que du ko singal Youssou voilà mu te li mu wax moo wax na leneen lu nga xamante ne xëy na euh, peut-être amuñu les images mais il a eu à dire énormément de choses keroog Youssou vraiment dem bay wax ne sax mbay ñëwal wax leen duma seen moroom wax leen. lu ne rek Youssou wax Youssou wax na lu ne rek Youssou boobu moom Youssou dafa yëngu. <laughs> mais waxul ni gone may dëkk waaye maga may daal. non waxul loolu ko wax. waxul loolu néanmoins Wally itam <laughs> xëy na xëy na Wally itam euh, symphonie ci benn live bu mu amaloon moom Youssou moom Wally euh, jotoon na fa wax ay wax yu nga xamante ni euh, les gens pensent réellement que moom lay tontu ci yooyu la wax loolu itam am nañ ci extrait bu ñu ko mënee bu ko mënee dégg. dafa ne woon. Oh, moom bu ma fàttalikoo kii dafa ne woon Dakar ga ne ci yoonu Mbadaan kenn mënu faa dem yow sax demoon nga ci Dakar ga bu ma juumalee fan yi paase dem nga fa waali nee na moom dem na fa hmm. dem Dakar ga dem na fa gis na ko naan na ca moom dem nañ fa pa mbaad mbaad ma ca mbaadaan teg ci naan leen man Ibrahima Xalilu mii may xaritu yàlla <laughs> en tout cas <laughs> c'est yënguwaat na musique bi parce que yii quand même c'est des choses yi nga xamante ni dafay dundal musique mais Youssou quand même les gens pensaient que dépassé na ces choses là vraiment parce qu'il commence à prendre de l'âge personne ne doute de de de li nga xamante ni yàlla may na ko ci musique mais xam nga tey mag bu taxawee naan nii mun naa nii naan nii naan Youssou daal dëggal na boppam si ses daal. mooy bàyyeegul. maa la wax lii bàyyiwu ko kenn te ku ko wax mu tontu la. doo dem <laughs> doo dem lii il faut dire aussi également que ni lii dafay dundal musique. Mm-hmm. parce que remarqué woon nañ ko ci Wally Seck Pape Diouf. remarqué nañ ko ci di Diop Wally sekk ku ci ne ci ñoom rek booy bëgg jël ci benn ci benn yoon dangay ngay xool ki ci gën a tegu ci kaw nga nga xëcc ko jëm ko tendance pour que mm-hmm. sa yoon mën a mën a leer. Mm-hmm. donc ñu ci mën a jàpp rek mooy luy dundal musique lu et concurrence bi na seen. Mhm. depuis lors et encore mën naa ci bi boor mën naa ci bee boor bi gis naa ñu def ko challenge parce que euh, waa Futur Media match bi ñu leen sarax may leen ko ñu gañe ñun dañ leen ko sarax ñu ngi ciy wax lu rëy ba ma fubal ñu ciy wax ay mën nañ ci biir boor mën nañ ci boor fubaluma Ibou fubalul dañ leen ko may sax loolu dañ sonnoon taluñu woon ñoom ñu tal ñu taluñu ko gis naa ñu def ko challenge mën nañ ci biir boor mën nañ ci boor te énorme yooyu yëpp itam dafa bokk ci ci ci nañu mën lu ne rek day amul ci musique bi rek den yow na fi mm. fii li yëpp kenn mënu koo wax. Hmm. moom <laughs> koy def noonu statut yaa ngi toj. Eh, hmm. xam nga ni la. waaw waaw comme ñun waa Sen TV ay ndaanaan lañ. <laughs> ayca euh, Ibu Ndim fàttalil gars yi que ni euh, li nga téye sa loxo dafay dem. waaw tubaarakallah maman Diallo fàttali également que ni iPhone 11 bi tamit dafay dem. bu mm-hmm. ci kanamee léegi léegi. voilà 19h euh. dinañu dina dinañu xool ki nga xamante ni numéro moo gën a fës ci serveur bi ñu woo ko en direct may ko iPhone 11 bi nga xamante ni instant.